asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. allo. maa lay dégg de. Eh, asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Eh, koo kan la koo kan la. soxla. ma ne koo la laa koo ma ma ne kan nga soxla kan nga soxla. allo. maa lay dégg. waa kay soxla woon. waaw ah, bisimilah Omar Cissé kan jibe sun. moom laa waxoon. maa lay dégg kenn. waa kay Omar Cissé kan jibe sun. waa Rip. waa de maa ngi lay nuyu di baax a baax. waaw yal na yàlla nangu siyaar bi fay naa la bi. ma ne na ngeen def laaw na ngeen def. Kéema lu waxoon nga ko def def rek. sant yàlla gërëm sama baay. may na nga def laaw na nga def. maa ngi sant sama baay. ma ne Omar Cissé kër la. wala wax yaa ngi sant sa baay. maa ngi sant sama baay ah, yaa ngi sant sa baay. waaw. waa Kéema Omar na ngeen def bàyyi yéen a fi jàmm. ah Kéema sax na ngeen def ji bëri na Kéema Kéema waxal li ngay wax. waaw ma ne. maa lay dégg. waa kay yàlla dafa dogal. waaw lu yàlla eh, dogal. Eh, demaa demoon Saalum te ku ne xam na ne man bu mu fay gëj ndax laa dëkk. loo demoon dëj. waaye déedéet dama mën a damay dama faa demoon xam nga man baykat laa ñëpp xam nañ ne baykat laa. déedéet yow dañ demoon sa waay déedéet déedéet wax déedéet wax di lu métti métti non non dañ nga demoon. man doo mu dëj da nga maa déglu baax man ñëpp xam na ne man baykat laa doo baykat. waaw léegi damaa dégg lu mu la bëgg a faral léegi nag ah, yàlla waaw ma jógee Saalum ma lay woo rek sama xel daj la ndax ah, bëgg gi ma bëgg ak li ma la ne bëgguma la ne bëgguma bëgguma la nanguluma la. waaw Omar Omar Omar yow tamit seetal lu nga Omar mi ngi taxaw ni da ko wax loolu. waaw waaw mais li nga wax moo dugg ma ne. waaw. léegi nag yàlla dogal la ma fa gis ba jógee fa ba ñëw ma xam ne jàmm ju ma la yéene nga loolaan bàkkoo daan fëgg sa dënn di ko joxoñ di ko ndamoo di ko tiitaroo waaw léegi man ma jógee fa ne mucc la fa waaw lii moo taxoon ma ne naa la woo nag waxtaan si ak yow waaw dama lay laaj biir nag allo waaw loo may laaj biir waa kay ma ne waaw ma gis laa bu ko laajee bu ko jaree ren waaw allo ma xamul allo waxal rek waa ma ne bu fekkee bu ko jare laa li ma gis man waaw wala allo Omar yaa maa dégg. la dégg de. waaw kay maa la dégg jubóo maanaam la rek. dama dama li ma man mi fa jógee. su ko jëree ndax jarul. ma man la noo gis wax na ka léegi mën a. waaye moom laa lay wax da dem ndànk rek dama ne. waaw ndax jarul. nga jaay nga jaay toole. toog Ndakaaru nga xam ne ndax la ma gis tàngaay man la ma ko gis. waaw la ma man laa ndax jarul. nga nga nga maanaam fii fii allo. ma waxal rek waxal rek waxal rek dama ma gis laa ndax yow pare nga pour ndax lañ fa Saloum waaw maa ngi waaj wa la ba Kéba Diagne waay waa da ngaa déglu est-ce wax ma ne waa déglu rek gis nga man ak loo mën a wax waa déglu rek loo mën a ka waaw kan jàpp lu mu kañoo kañoo fa la borom dëkk waaw doo xam naa ko man mi waaw bon kon comme ndax boobu ko doo taxaw na mo mala la mujj saalo ma fa tàngal ndax pare nga pour ñib si ndakaaru man nga ñib si waxama pare nga ñib si de lo lo de dama na la bu ko jare sax jar na nga jaay li fa am yow ya xamna ne fooy waxo na nga ñew ndaka dama na jar na nga jaay li nga am la la wax man la ma am saalum la ma am saalum amul ko am ci ko ci kaw suuf amul wa homar la la est ce que yow ñëpp ne wo nga leen laaj na wax na la lu xew la ma ne xamna ko sax tu danaa bo wootee te du bu bëgg lu ma tëral weer wa waa ma li ma laaj léegi Modou Maram laa la laaj. ñëpp a dëkk ah, ak luñ fay dund. ndax nattu la wala tiyaaba la wala ñàkk pexe la ndax la nekk Saalum te yow nga laan bàkkoo foo taxaw de tiitoro joxoñ sa baaraam sa dënd. teel a gën a teel a ba nga xam ne yow nga am sa kër mënoon noppalu am sa néeg mënoon noppalu tàng si biir tàng si biir ndax ba tey joxuma ñu mën a taxaw di ko bàkkoo di ko tiitoro ndax li xalaat nga ko yow xalaat nga ko léegi xam nga baaraam bëgg sama a bi tey faa ko rëkk looy rëkk tey waaye rek sama dund bi ndax ñi ma ngaa taxaw na Omar Cissé kan jibee sun bàkkoo ko tey ñemee ko ba tey Omar Cissé kan jibee sun saalum saalum pire capital ñombaata ca gajj ba ca forêt ba ca siko mbaat nanga ko rey ca bott ba fala dëkk wala du Omar Cissé kan jibee la Omar kan jibee sun la kay ah man de man mi fa jógee bër ci démb waaw fa gis ndax ak la fa dund bët na ñoo xam boo fa jógee boo ñëwee da ngay dem sangu jigéen yow jikkoy golo ak muttu laa la gisee. waa déedéet déedéet déedéet déedéet. jikkoy golo ak muttu nga du noonu de du noonu de dama ne la. noonu la yow Kéba yow. waaye Omar Omar Omar déglu rek. booy jël misaal misaal mën nga ko jëlee si leneen waaye bu ma jëlee ay ay golo ay golo ay mutt ak nang ay yàq yooyu noonu. Omar man sama wax du du yàq man defar laa am su ma narata defar ma ba. yow xam nga bu baax ba waaye déglu rek yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow man dégguma la wax de man du tey yow so ko defar ah ma so ko defar yow yow yow yow lu gën salum xam nga ko ndax ma fi nan yow ba nga demee salum ba nek sa dërëm génn sa fukki dërëm gën wa déedéet du keesoo waxi lo dama la wax na la wa yow waa da nga déglu rek waa dama la wax dama la wax nee na lan dama dama lay wax salum ci bopam waaw ñun man moma dakal dàqal New York la wax ni moma dakal amerique dakal ji jii ma ne waaw Dakar gii ma ne ci nattu laa ne rek. ci nattu maanaam natt natt bu ma yàlla nattoo la rek. waaw man man ne Dakar waaye fii de. yow Dakar oo gën a tàng Dakar du ñaa ngay du ñaa ngay du ñaa ngay dog dara nga naan ma eh, Dakar Dakar ba am benn njëriñ. Omar Cissé. waaw man maa fa jógee. li ma fa dund dama ne ndax jotul ku fa jógee dem ci sangu ji sax sangu na saa dama am lu takk wala daa am lu fa ne man maa la laaj dama ne la. boo boo booy sangu ji géej lu tàng sangu ji géej. waaw ndax natt yu ba nekk ak coono yi ak jafe ya fa nekk. maanaam nattu nattu fu nattu amul nattu bu ma amul. waaw déedéet nekk waaw dama ndax man. jotul laa na ba ma ne ma ne nattu am na fu nekk ba na ku ci saw natt na nga ko muñ te yàlla tax. waaw dama est-ce que jotul ku ma jógee dem sangu ji géej loolu laa la wax. booy sangu ji géej looy sangoo géej. waaw ku fa jógee ndax tey ñaara boo xam ne du keesoo kota xam nga da nga naa mag ña boo génnaa kota da ngaa sangu ju géej. ah boo jógee ah yaa ko wax yaa yaa ko wax yaa ko wax yaa ko wax yow déet yaa ko wax yaa ne Saalum kaso la. yaa ko wax ndax ndax da nga ne képp ku képp képp ku ginnaaw kaso da ngay sangu ci géej ne it ka Saalum bon bu ñu jëlee ko foofu ñëw fii duñ sangu ci géej bon da nga ne Saalum kaso la yow yaa bëgg wax loolu. waxal ma li ma wax yaa yaa ko wax yaa ko wax de. yàquma sa der bi yàquma sa der bi yaa yàq sa der bi. waxuma la loolu de. yow yow baaxoo santoo yàlla. waxuma la loolu de man déedéet bu fekkee daal yow daal maanaam li nga xam daal dara nga ci bëgg dara dara dara. waaw xam nga loolu yow yow yow daal yow yow daal yow daal maanaam ma maanaam ka ka dem da di laay jànkala ka nga def xaar ñu laay wax ñàkk nga def wut foo doon bokkatu yooy daal moo la gënal dem fa nga dëkk daal yow. luy loolu moom. mooy li ngay wax rek. wala daan koy waxal. ah waaw yow pire la. man déet yow kay déet yow kay. dëgg la doo saalu doo eh, a yàlla def na ma dem naa si dëkk yu bëri réussir naa mooy dama doon jàllale li nga xam ne ñu ko doon bind at yi yëpp allo. waaw maa la dégg beneen bi tamit doon jàllale nit ñi ne nañ bàyyi teel a ruuj yàlla defal nañu si ndam nag am na ñoo xam ne fekkoon nañu commencé ne xëy na ñu seen roto xam na ñoo xam ne naa la bu laajee damm rotee te damm leen. waaw ah. nga sant yàlla la. Ah. léegi loolu laa doon laaj bi comme yàlla def na seen dëkk mënu ma foog na yegg. may naa la wax la ko laaj leen sa xalaat xalaat bi nga xam naa ko ba ñu bëri fekk si nañ ma xam na ñoo xam ne boo na ko waxee leen taal seen roto yi am na ñoo xam ne leen tàmm seen roto yi waaw waaw léegi nag yow foo ci toll loo ci xalaat yow waaw ñun ñun sa partenaire lañ commencé woon ruuj ba léegi ñu ngi ruuj déet waxuma loolu de dama na la man laa li ma xalaat laa ba gis ko ba wax ko yow loo ci xalaat yow li ma xalaat naan pétrole ma ko gënal daf ko naan pétrole gaañu moo ma gënal ah moo la gënal li ma li ma li ma li ma jëm Omar jur gi nag li sama yoon ci jur gi ah déet jur gi dañ war a lekk Omar kanaa jur gi amuñ borom waaye non non lan mooy jur gi jur gi amul borom man nga woo gis yow ah waaw moo tax seen i borom nañ leen xew jël seen ngooñ mi ñu bayoon ñu jox ko jur gi ñu lekk ko waa déedéet waaye ñëpp xam yokkal mën a ko yow parce que nga dem si àll bi di sàmm nu tax ngeen taal teel a sàmm boo demee àll ba ngay sàmmee boo demee lan àll boobu ba kenn ruujub ko ah Omar lan la yàgg naa wax sa wax jalu Moussa bu njaab yàggee nga roo feeñ sa wax du sa wax sa wax du jalab dara sa wax du jalab dara sa wax daal du jalab tus Omar man allo maa la dégg ma ne ndam am na de fu ndam am ah fii laa leen taxaw da wax ne dama jël loo xam ne mag ñoo ko fi defoon te mag ñi dem nañ ñu ko fi bàyyoon xale soppi nañ ko. mooy lan nañ ko soppi allo. waaw maa la dégg waaw ma ne nañ ko soppi nga ne ma déedéet. waaye nit ñaa ko bàyyi seen bopp. la mooy lan. ma ne nit ñi ñu koy bàyyi seen bopp laa li ma la wax. lu lu lu lu nit lan la. wala yow déggoo ma. ma ne lu nit ñi da bàyyi seen bopp loolu lu mu tax dara amu tut. waaye jaay ma tut damaa taxoon fi am li ma wax nga ne ma déedéet bi ko def. dama xam ne yéen a ngi li nga waxoon laa bëgg nga waxaat waaye da nga ne da ngaa yaani waaye du ñu seen bopp ñu ngi ko bàyyi seen bopp xëy na ñàkkul jamono danañu jox dëgg moo tax loolu la yow heure boo ma wéddee yàlla jox ma dëgg dalxan yow mu yow yow yow mu yow yow sama diggante yàlla mu seene li may wax yow yàlla mu yàlla mu yàlla mu waaw sama diggante yàlla new ci ah, xanaa kon sama diggante yow di jàmm ba seytaane jëne ah Omar baax na ñu yendu jàmm man seytaane jërëjëf mënumaa seq ak moom baax na waaw seytaane jëne de asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. allo.